D U D U F A I T Doudou fais des vidéos s'il vous plaît. Bonsoir. C'est pas grave, c'est pas grave. yéen a ngi ci jàmm man loolu moo métti quoi ma commencé génn télé ba léegi gars yi foog dama xaalis fu ma tourné ñu leen ma xaalis mais mun ma bañ damay joxe waaw booy ma lebal ko sama xaalis woo ko booy sama xaalis dama soxla mu ne ma nekk ma fi dama bougé mu envoyé ma benn vidéo fekk mi ngi sali ma woowaat ko dafa ngi sa buntu gaale sa moto bi nga gaale sa buntu gaale jël naa ko bi maa ngi koy jaay mu ne ma mais conseil booy lebal sa lebal sa ko bu ko lebal may ko donc koy lebal heure bi ñu koy fayee nga ñëw ne moom am affaire ci bés moom moo naan sama ne la nga ne dem fu mu voisins yi tamit mu ngi leen bëgg laaj benn affaire les voisins chaque jour ñu gis gel bi ngay dugal dugg mosuñu gis sàcc bi dugg sa kër. billaahi dama xam la ma metti deux mois maa ngi entraîné dem ma un kilo. gis naa fi ay xale y a des enfants aussi qui font la CM2. CM2 classe CM2 mooy classe bi gën a ba si fajar defoo dara nga ñëw ñu ne la ndekki suba teel adduwaas deux fois cinq plus quinze quatre-vingt dix mais man yàlla daf mu mayoon ci kanam rek la doon toog si kanam xam nga ñu aay ñoo fay toog projet su joxee ba joxe kii ba war a des résultat ñi doon sama wet nii laay xool nii laa doon bindee xoolal suñu yëgalee rek ma yëgati projet bi su ba si ñoom ne fan ma ne mais su ko nee bëri ma ne CM2 fa la ñuy fen waaw wala déet defoo dara yaa ngi toog ci biir bi prof bi ñëw prenez une feuille vous étiez en baptême la fête partait son plan tout le monde dansait sur le son de Ouzin Barry Barigo soudain entendre les grilles raconter waaw wala déet ku si jël B boobu bu ci am ay kii nii dàqul nay ci classe bi CM2 examen bi ci am du moroom bac du moroom benn examen waaw wala déet bac na def wala BFEM génn deux jours après certificat da nga koy def mu war a génn deux mois nan la xale bi di foowee bay jékki-jékki toog jékki-jékki dara muy sama ndey man daa booy Sénégal ñuy fubal ma paas gars yi centre ma ba di dem bay ñëw ma jékki-jékki rek sama xel dem booy est-ce que am nga wala amoo mais dama amoon benn technique nag bu ma nekkee école xam nga lan la woon saa bi ma yee huit heures jaan man neuf heures laa 9 heures duur jugal nag ay 10 heures laa dem 10 heures duur jugal école jot na ma léegi li mu def bi dee na. mais y a une chose qui me fait mal c'est quoi c'est la diarrhée la diarrhée musclée que tu, tu peux être musclé tu peux être musclé comme tu veux mais tu peux pas retenir et la position la plus utilisée quand tu as la diarrhée c'est ça. Et c'est comme s'il y avait une connexion entre ton ventre, tes... ah mais eh bien c'est vrai ah lajare dafa am connexion entre ton ventre tes fesses et les toiles boo solee da koy dee waaye jegel dafa la dafa am ay situation yoo xam ne mënoo ci def nànk mënul nekk boo defee nànk peinture douche bi de. benn jour dama ànd ak sama benn copain suñ biir di daw ma ne ko maa ngi dem mu ne ma lan la ma ne ko isaan mu moom maa ngi ñax mu ne ma demal demal demal rek ma taw jékki-jékki sama xel dem sama caabi bi ci moom moo war a delluwaat xam ngeen nan laa delloo laa nekk booy bi di woote jékki-jékki ne allo oui bébé oui je te donne par fii là oh. receveur sa boy ci doy. waroon na mais loolu lu mu meew meew. gerte bi da ngay dem gàllankoor di ko xaar ne ko bébé su dee ma surtout ma ne la maa ngi wàcc wàccu leen tëddee ko mu lay ñaw. kii gitaar foofu mun na ñëw ñu ngi taxawee comme ku granulaire di toog prof bi di dicté prof bi nu muy dicté ba yegg si bicyclette Moodu en sa bicyclette benn nulaar bi xool beneen nulaar bi ne ko fis Y bi fan lay nekk ci B wala ci C keneen kee ko gën a nulaar xalaat na xalaat ba sonn jékki-jékki ne ko lu mu fis bindal vélo benn mu benn jinax génnee fee di foo ba dugg ci gémmiñ muus bi xam ngeen def muus bi yaa bu dëgg ay gént la ay gént ku dee Viviane mu lay fóon ñu ngi xam ngeen Viviane paa bi dégg loolu rek simile deewam yàlla natt ko mu tombeeg dañ koy sangee rek sot jàpp ko ñu sang ko muur ba du des bopp bi rek ba tey commencé woon ñu ne Viviane bien kaay kon ko Viviane di àdduna parce que grâce à tout ça ah bah non rek paa bi ne fa sant naa ko mel dafa dressé xaj bi dressé xaj bi dressé xaj bi ba xaj bi dafa mun tontu mais xaj bi oui mooy boobu non mooy boobu waa ji dem voyage woote si dëkk kër gi mais dafa dressé xaj bi ba xaj bi day wuyu de mu dressé xaj bi woote xaj bi wuyu lépp bu ne boobu mu ne ah xam ne waa ji xam na ne boobu mu ne ko alors si boobu it boobu ne ko boobu mu ne ko ça va tout le monde yàlla ne ko day togg boobu ne ko boobu boobu ne ko togg am nekk di nelaw mu ne ko boobu mu ne ko mais mi ci néeg bi mu ne ko boobu mu ne ko peut-être dafa nekk ak tantam ak ñoom yaayam xam nga jigéen ñi rek ñu muy def boobu ne ko boobu mu ne ko kon dafa nekk ak xaritam yi boo xam naa rek dañuy waxtaan boobu ne ko boobu waa ji commencé tiit ne ko boobu dama la dérégler ba doo ma fen j'espère que tey doo ma fen boobu ne ko boobu mu la fen mu la fen mu ne ko dafa nekk góor ci biir néeg bi boobu ne ko waaye commencé tiit ne ko boobu ngir yàlla jàpp ci rek wax ma la moo xew ci néeg bi boobu ngir yàlla wax ma xam ngeen boobu du mu ko tontu boobu ne ko waaye yooyee def ci néeg bi boobu s'il te plaît rek moom boobu ambiance na loxo yi jub bu leen neex ñu toog leen seen kanam yi mu ndóoloo leen pour mu fecc dañoo ñëw pour retaan ñëw ñu pour ñibbi.